internet yu 5 TV maa ngi leen di nuyu di rafetlu saa su ne seen ànd ak seen déglu ak 5 TV daleen jàmm ci li gën a fës ci xibaar yi ñu dooree ko ak li mu bésu tey bii di mbas mi di Covid 19 jàppale ne si 1000 euh, ci 929 tests yi nga xam ne amal nañ ko ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo si ñëw am feebar bii di coronavirus soit un taux de positivité de 3,01 pour cent jàppale ne tey jii am nañ 3 cas euh, contact lañ am am nañ tey nag fukk ak ñeent cas yoo xamante ne ma nga jóge ci aéroport. aéroport Blaise Diagne tey am nañ fukk ak ñaar cas communautaire 65 patients maanaam juróom mbenn fukk ak juróom nit ñoo xam ne rek bañ leen saytoo gis ñu jàngoro bi ci seen yaram dañ leen di bàyyi rek ñu daal di ñibbi seen kër waaye nag jàppale na am nañ juróom ñeent juróom benn cas maanaam ñoo xam ne rek ñu ngi ci sauvetage tey jii ci kàttanu yàlla rek sant nañ ko di ko gërëm te xam ne amul benn bakkan boo xam ne rot na tey te mbas mi moo ko yóbbu duñu def dara di ñaanal ñi nga xam ne rek ñu ngi ci lalu hôpital yi yàlla fëgg seen bopp ñu jóge fa mbas mi daal di ñu bàyyi ñu daal di antu ci li gën a fës ci xibaar ñu doore xibaar yi ak lii di màggalu Tuuba xam ngeen ne suba ah, talaata yema ko ñema ko juróom-benn fan ci weeru octobre la ñu daal di màggal bés bu tedd bi mu nekk nag bés boo xamante ne ci lañu doon exilé kii di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ginnaaw bi nga xamante ne ah, tubaab yi nag buntu xatal nañ ko fii ci Sénégal daal di ñaawlu li ni mel li nga xamante ne ah, moom lay jàmmoo yàlla moo nekkoon rek li nga xam ne loolu la tubaab bi ba ñoon ba tax sax ñu ne dañ koy yóbbu rek exilé ko ca euh, gabon ngir rek mu mun a bàyyi li ni def waaye nag ki nga xam ne nitu yàlla nag mënoo ko tere mu jaamu yàlla euh, foofee mu nekkoon ca gabon nag ci bés bi la tomber ñu waral euh, bés bu màggalum tuba bi mu nekk bés boo xamante ne si lañ doon yóbbu cheikh ahmadou bamba rasul mu génn sénégal loolee nag buñ koy wax nag daanaka jamono ci lu ñu saytu rek muy touba dafa mel ni rek fees na del ci weekend bi rek ñu bëri nag daan nañ dem ngir rek mu nag fekke nag li nga xam ne mooy bés bu tedd bi jamono ji sax nga xam ne mbasu coronavirus bi ñu bari ñu ngi xalaat sax ne ñii di taalibe naka duñu dem ci Touba waaye dafa mel ne ñooñu Serigne Touba dong moo leen leen yitteel ba tax nag bu màggal amee nag yu am yoo xamante rek ñu ngi koy seetlu maanaam ñi nga xam ne ñooy chauffeur yi nag dañuy daal di amal garage fu ñu fii ci Dakar ngir rek mun a am ñi nga xam ne dañuy dem ci Touba buñ ci jógee ci loolu nag li nga xamante ne mooy tarif yi maanaam rek dañu daal di yokku prix yi nga xamante ne rek dafa tuuti woon woon mu màggal bi di ñëw ci weesoo ci loolu tamit seet nañ ne ñi di ah, dawalkat yi nag dañuy ut ay raccourci yi maanaam dinañ fexe ngir ut yoon yu gën a gàtt ngir ñu mën a dem rek Touba ah, daal di duggaat ci yeneen gox yi rawatina Ndakaaru ay yeneen euh, région yi nekkee fii ci Sénégal ngir rek ñu mën a jël ñi nga xam ne dañuy bëgg a dem a màggali Touba noonu sax jàngat bu ñu def rek mu mel ni sax boo moytuut euh, mesure euh, barrière yi nga xamante ne moom la autorité sanitaire yi digte rek ngir ñu mun koo amal boo moytu sax loolee duñ ko mën a respecté rawatina nag ñi nga xamante rek ñooy nekkee ci biir kër yi jamono ji nag euh, Touba daanaka lépp loo xamante ne rek euh, def nañ ko euh, lu bëri amal nañ ko waaye jamono ji ñu wax ak yéen nag jafe ndox am na foofee sa Touba surtout ci kër ki nga xamante ne mooy xalif général des Mourides waaye tamit ki nga xam ne mooy porte parole di Bass xam Abdou Khadir jamono ji nag am na gox yoo xam ne te Touba ñàkk ndox ba tax rek ñuy wallu askanu Sénégal rawatina ñii di waa Sen'Eau ñu wallu leen rek indi leen ndox laat ta magal bi di tambali ndax jamono ji eh, dekk ba fess na del ñu ñaan ñi nga xamne dem nañ magal yalla yobul leen si jamm eh, daal di daal di leen indi si jamm yalla nangu seen ziar ñu antu ci leneen lo xamantene rek ba tay ji ci magal Tuuba lay wax eh, mu melni nak nag soxna Aïda jallo ren ji nak dafa melni dañ ko pont manam rek ginnaw bi nga xamantene rek ki di khalifa general de mourite jox na digle ngir rek mu baña ñew fofé ci ca na serigne bi mom soxna Aïda way nak dafa bëggoon rek daal di fété e li di e magal bi ca Thiès e ca Mbour fa nga xamantene moy Medinatu salam way wax jojé nak du jub ndax ki nga xam moy sous préfet ba bu nekké ca Mbour dafa yëkkati ay cadre di xam ni ki di ayda Diallo nak du fa défé li di magal bi mu melni ayda Aïda Diallo jamono ji nak jaaxle na way nak lu pexé amul lu mu mëna def rek moy jëfé diglé yi nga xamantene mom lañ ko wax mom ayda Diallo sax daal na yëkkati ay cadre di xamal ñi nga xam rek ñoy talibé ñu daal di tok seeni kër rek ñu féete defal li nga xam ne mooy màggal bi ba tax na nag kii nga xam ne mooy préfet ba nag daal na ko attuwaat nee na bëggul gis dara lépp lu nu rokki baas wala sax li nga xam ne mooy ndajaloo ak attroupement ak rassemblement rawatina nag ndënd yu tëgg lépp loo xam ne rek day indi bruit foofee ca Medinatul Salaam rek dina coûter cher ki nga xam ne rek mooy Aïda Diallo ba tax na nag Aïda Diallo jamono ji nag joxe ne ndigal ne na rek ay taalibeem toog seeni kër ngir mun fa defee li nga xam ne mooy màggal bi ginnaaw bi nga xamante ne digle yi moo duppee ci cheikh ki nga xam ne mooy Serigne Moutala Mbacke nekk xalif général de Mourides moom ne na du def dara lu topp ndigal ginnaaw rek bi nga xamante ne moom Mouride la. ba tey ci xibaar yi ñu wax nag ci mbiru Ousmane sonkoo ginnaaw nag jàmmaloo bi mu am jamono ji digganteem ak ki nga xam ne mooy Mansour euh, Faye nag ci wàllum wax ju ñaaw nag Sonko démb nag demoon na ca Touba euh, daal di seeti ki nga xamante ne mooy xalif général des waaye nag bu mu fu génn dafa naan euh, bàyyi na lépp loo xamante ne wala bàyyi na sa ñi nga xam ne nag ñoo yëkkati ay kàddu yu ñaaw maanaam ay saaga yu bon nag jëmale ko ci réseaux sociaux nag di ko ñoxoo ñi tarixa yi wala sax ñi di kilifa diine nee na rek moom mi nga nga xam ne moo yor Pastef moom Sonko pare na rek ngir jàkkaarloo képp koo xam ne rek ci partem nga bokk waaye tamit di yëkkati ay kàddu di ko jëmale ci nit ñu nit ñu baax ñi rawatina suñu xale fi nekk fii moom nee na képp koo xam ne da nga dëppoo ak li diine wax wala sax suñu mag yi lu ñuy digle rek doo doon xaritam dina la génne ci partem boobu moom Sonko di wax ne ah, lii di religion bi daf ñu defal loo xamante ne képp koo xam ne yaa ngi fii ci Sénégal war nga ci teg loxo daal di jëfee digle yi nga xamante ne moom la mag yi baax yi liggéey moom Sonko ba tey nee na du bàyyi benn yoon koo xam ne day dugg ci parti mba di ko xaajale ak kilifa diine rawatina ci yenn tarixa yi Sonko ba tey mooy wax rek nee na mu ngi ñaawlu nag bu baax a baax ñi nga xam ne rek dañuy nekk ci réseaux sociaux yi di yëkkati ay kàddu ñaaw ak i saaga di ko jëmale ci xalifa yeeg kili kilifa diine yi moom Sonko nee na ma ngay préciser ak déggu képp koo xam ne yaa ngi ci partem rek na nga jëfee li nga xam ne loolu la lislaam waaye waaye rawatina jox cër ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi du nangooti benn yoon rek ko koo xam ne day dégg ay kàddu ñaaw moom nee na ah, Sonko pare nag jël avance ngir moytandiku wala sax wax yu ñaaw yoo xam ne da koy amal si ñi nga xamante ne dara ci lislaam ñoru leen mu nekk kàddu yi nga xam ne moo duppe ci Sonko ginnaaw bu nga xamante ne dem na niki démb ah, gisante ki nga xam ne mooy xalifa général des Mourides ñu wax nag ci mbiru Amnesty Sénégal nekk benn kuréel boo xamante ne rek dafa nekk ngir saytu ah, rek di xeex ak yelleefu aadama maanaam rek yenn mettital yi nga xamante ne nag ñi ñu koy tëgg seen moroomu nit nag mu gis ne ginnaaw jafe-jafe bi amoon na ca wakaam diggante militaire yi ba jëf ju ñaaw yu ne am na foofee ñoom waa Amnesty International ci alxames bi yemoog benn fan ci weeru octobre nag saytu nañ ko ci yenn gox yu mel ni Fuuta nag daanaka jàmm amu fa diggante ñi nga xam ne ñooy takk der yi ak ñi nga xam ne ñooy population yi moom Seydi Gassama mi nga xamante ne mooy mooy chef ba ca lii di Amnesty Sénégal moom moo yëkkati ay kàddu yi nee na dem na nak ca Fuuta ke gox yi melni orko Orkadiéré amadi unare ak Ndindiri nak gox yoyé nak ñu ngi metti du rek jafe-jafe yi nga xamantene ñu koy amal ak autorité manam ñi di police ak gendarme sa yu marché amé jamalo bu ñu am lolé néna rek waru nekk lo xamantene rek indi na ko ndax ñi di eh, tak dër yi nag dañ leen di yobbu ci gox yi ngir ñu ar leen waye tamit di att deug wala sax di samal eh, gox yoyé jàmm am fa waaye bu fekkante ñom seeni bir nak ak askan wi wuñu eh, bes bu nekk rek dañuy am jàmmalo kon nag dafa mel ni seen liggéey amatul uh, benn njëriñ li ni mel nag war na tax nag ñi di force de defense yi daal di uh, amaat ab dialogue ñu gën a am dialogue boo xamante ne daf leen di boole ñi di askanu au Sénégal bu ñu def loolu rek kon nag uh, lu ñu naan paix et sécurité mënut am fii ci réew mi wax jooju nag kii di Seydi sama mi nga xam ne moo nekk ca bopp Amnesty Sénégal moo yëkkati loolu nee na jot nag ñu indiwaat dialogue bu gën a rafet diggante askan wi ak ñi takk der yi hospitalisé ñu gën ko xam nak ci ëmb yi nga xamante nak ñi di wa hôpital ñokoy dindi mu nekk lo nak dañ ko nara dañ ko nara a voté fii ci Sénégal ginaaw bi nga xamante ñi di juriste association des juristes du Sénégal juriste yu jigéen ni ñom neena rek dañ ko bëgg rek mu nekk lo xamante yoon la kay yoon da kay koy may bu fekkante ne xalé bu jigéen bi nga dañ ko ëmbël dañ ko ëmbël wala ñu violé ko wala ki nga xamante magam mo tuddé ak mom wala sax papam té li ni mel nak gatch bu metti lay indi fi ci askanu Sénégal ba tax na rek nee na cas yooyu bu amatee bu fekkente ne rek mun nañ dem hôpital ñu dindi ko ngir rek wérgu yaramu xale bu jigéen bi wala sax wérgu yaram wala sax indi jàmm ci diggante famille bi ñu daal di ko def li ni mel nag buñ ko bañ ko waxee ba tey ji euh, ay journalistes yoo xamante rek dañuy yëngu ci wàllum santé ak ak. wàllum santé bu soxla askan wi maanaam euh, population ak développement ñoom nag daan nañ ci def ab gëstu ngir laaj rek euh, askan wi naka la ñu gisee euh, boobee avis bu ñu ko defee nag am na ay kàddu yu bari yoo xamante ne duppee na ci yenn ñi nga xam ñu ngi yëngu ci wàllum paj tamit ak gis-gis bi nga xam ne askan wi def nañ ko bu ñu sukkandikoo ci le soleil mi nga xam ne moo joxe bi la dem nañ nag seeti ki nga xamante ne mooy Moussa Bari Sall nekk consultant ba pare nekk directeur bu cabinet constitué nee na la gudd 75 pour cent yu askan wi maanaam rek bañ leen laajee ci bile mbir nag dañoo daal di ànd rek ne uh, li ni nag war nañ ko mun a médicaliser war nañ sax mun a d' accord ci li ni uh, ci conseil boobu nen na nag waaye nag am na ñoo xam ne nag d' accorduñ ci waaye nag ñi nga xam ne d' accord nañ ci dañu wax ne rek bu fekkente ne uh, lii di ëmb bi day indi jafe-jafe ki nga xam ne moo ko yor nag d' accord nañ ngir ñu indi ko ba tey nag kii di monsieur Moussa Bouri Sall moom moo yëkkatiwaat kàddu nee na li ni mel nag muy gën a am ci zone urbaine yi maanaam ci jeunes yi nga xamante ñoo nekkee ci biir banlieue bi te avortement dafa yomb ba tax na nag li ni mel euh, buñ ko naree dàkkal nag bari nañ ñoo xamante ñu ngi ci yëngu ci wàllum aada ak diine nag dañ ko rafetlu woon tax nag nee na nag bu ñu seetloo sondage bi 67 pour cent ci échantillon bi nga xam ne amal nañ ko rek daanaka ñu bëri euh, dañoo nangu rek ñu daal di médicaliser li nga xamante ne mooy ëmb yi nga xamante ne ñu ngi koy amee te duñ ko amee ci nu leen di neexee mu nekk loo xamante nag dina jural askan wi ay jafe-jafe rawatina ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllum diine euh, ñi ngi ñu mel ni maanaam oustaz ku mel ni oustaz Kanté jamono yi passé rek mi ngi doon ñaaw li ni mel ne na rek bu koy defee dañuy may yoon xale yu jigéen ñu def lu leen neex te ku ci am ëmb rek danga koy mën a dindi te loole waru am ci askan wi bu amee rek dina julalaat yeneen jafe-jafe yu jeexalee xibaar yi ak ki nga xamante ne mooy ràngu ñu turam dëgg di euh, Fatoumata Fatoumata Bari nag ràngu nag ginnaaw bi nga xamante ne euh, juin ba passé lañ ko daal di teggoon loxo moom nag dinañ ko dégg moom ak ki xaritam bii di Aysatu Njaay ginaaw bi nga xamantene rek tëj nañ leen ci kasso bi ci ay dir nak bo boo tout ci kasso bi nak japp leen do 4 octobre niñ ko déggaat mu taxaw ci kanamu juge bi ngir ñu mën ko atté mbokk yi mu nekkon nak xibaar yu gënoon fës ci suba ci du leen def dara ju di leen sant di leen gërëm ci and beeg déglu bi saa su 5 TV waaye dañu dal di leen wax ne daal di abonné suñu chaîne bi di 5 TV di ñaan ñi nga xamne ñu ngi dem ci yoonu Touba yàlla yóbbu leen si indi indiwaat leen ci jàmm ba paré nangu seen julli yi nga xamne ne ñaan nañ ko foofu jërë ngeen jëf